da ngay ëpp da nga may ëpp gabarit nii doo ëpp doole. waaw parce que ñu bari nañ sa loolu loolu tax loolay problème bi. waaye nag euh, perte waa ngay benn jour dañoo daje maa yow mu ne ma ma ne. lii gars yi di wax bu ko gëm gëmal sa bopp. li nekk si yow nekkul si ñoom. moom muy li nekk si bopp bi nekkul sa bopp. sama taille bi sutante wuñ ñu bari daa amul lu ma deful ci laamu. mu koy nuyu wax dëgg yàlla muy père pa bu baax wax dëgg yàlla suñu père la. moo ma gëm loolu noonu ma gëm loolu nag. dem Kaolack coow lu bëri ma ne comme kii du ma morom bu abi suuf lay fur ma woon kon du ma morom. avant ma avant arbitre tamit Père Gilles Balla mi ngi naan boobu soufflé toxal si kawam dóor ko parce que ragal la waaw. ma koy nuyu paas sama grand la wax dëgg yàlla. avant arbitre soufflé ma dóor ko arbitre daa soufflé fur génn suñu diggante ma dugal ko ko. après daw téye avant bras bi. mu téye avant bras bi def déplacement mu jam hypercule ma jam hypercule. def déplacement. bi mu xàccee di jam épercuit laa laa laa juyaloog moom. Mm-hmm. andi ko sama ginnaaw daan ko jël. nii <laughs> nga ko def ko def. daan koy taxale ko andi ko taxale ah. ko rek andi ko waaw. Ah. <laughs> léegi après Tidiane nga tàkk nga jaxase nag pour bi gay booy bii Tidiane Faye instant bii kii nangam xam nga. père Max nag xam nga sax ma koy nuyuwaale au passage ndeysaan mu ne koo xam te ne suñu ju baax ju ko nuyu bu baax a baax ndax moom da siy jàpp. ñu gis ni gars yi commencé gëm nag Tidiane ba nga jógee ci loolu après nga demaat ci kar non ba pare ci laa bëree ak Mbaye Diouf. wulli ah. moom tam dafa gën a yokk dafa yokk gën a yokk <laughs> dafa gën a yokk xar mi karaw. Ah. parce que moom moom. Ah. le fait que yéen ak yaa ngi Tidiane bokk puur rek. te ma daanoon dañ bëri woon ma daan ko. ah da bëri woon nga daan ko. ma daan ko. léegi nag biñ ne Tidiane yaa ngi Tidiane a bokk puur te doomu Gaston la. caw li na kur nag ma dugg es ma dugg si esa jomba ba lu tuddee signature contrat bi premier mm-hmm. ma dugg njug rek mu fekk ma fa yow yow rek laa doon xaar dinaa la wulee wulee ba nga ma ne ko fu ma jaaram yaa jaar ak yow ah. dafa lay daanaat ah. caw kur nag moom nag moo gënoon yokku ampleur pool bi quoi mm-hmm. parce que ñëpp dañ ne woon bi nga am benn dong combat la mm-hmm. muy yaa mbay bay juf waaye ñi des yëpp du ñu ay combat may leen kook sax du combat parce que mbër moo xam te ne boo ko dóoree mu fayu la Ah, foo ko teg nag waaw fi ma tegoon loolu moom mooy soo ko dóoree mu fayu tijaan mbër mu mu dóor nga fay moo la mën. te ñooñu nga mën nay daal. waaw. Hmm. sooy seet combat bu njëkk bi bi ma koy daan noonu laa ko naxe af dóor suuf lay furu mu dàq ma ay roñ ma arrière. Mhm. mu yaakaar damay arrière. Mhm. ma fere ne dóor ko ku mhm. mu mer dàq ma ay laaw ma sonk daan ko. mais nag bi ñu defee loolu après tamit ñu dem ba stade. ma sottee ko samay gite butéel wan ko gannaaw mu jël sama butéel sottee ko ko. mu jël sa butéel. sottee ko <laughs> <laughs> te moom te moom noonu coow bëri na si affaire bi. butéel ko jox. kenn jox ko ko. bu moo ko jël. xam nga boobu noonu jamono jooju dindeeguñu dindeeguñu euh, euh, kii bi boo at bi suufulee fur nga signalé. ñu may la nga dem sotteeku ñëw taxaw. at bi daal suufulee fur ma signalé. Mm-hmm. at bi may ma ma tourné dem si sama père Aline Diop. si banc bi. Mm-hmm. fekk maa ngi fa yoroon ñetti butéel. jël benn butéel bi. Hmm. sottee jël di jël benn butéel bi moom mu ñëw doxee sama ginnaaw jël benn butéel bi ma sottee ko mu sottee ko. dayda. Père Alioune kii bi woo entraîneur woo bi daan ko kii suñu la sottee ko. <laughs> coow li bi mu bi mu bëree noonu ma ne ko père noonu bàyyi ko kii dafa jaaxul xamul fi muy taxaw. Ah. fi ne cuumukaay ak sama cuumukaay lay jaax lay jaawale. <laughs> moo tax boobu bi suufulee ma daan ko wax boobu noonu boobu nekkatu fa. waaw bi suufulee fur ñu xeex ma moom. Mm-hmm. tës tës ku mu mu daw di ma laaw ma song ko daan ko. Mm-hmm. dem ñibbi coow na cour après ci laa bëre ak Ousmane Toucouleur Casamance. Mm-hmm. waaw mooy jour boobu noonu accident boobu doon am muy sunu journaliste boobu noonu. Mm, mooy bu ñëw Ibakan. waaw bi waaw. Mm-hmm. combat bu noonu moom. ci laa bëre moom euh, kaw kii nii Casamance. daan ko final. final bi yaakaar naa. combat bu neex sax. waaw combat bu coow noonu rek. mais xam nga rek Ousa Baye Fall suñu xarit <laughs> taalibu Bamba Ousa Dóor borom du <laughs> borom ah, <laughs> na comme moom nee dafa que takkul est-ce ah, ah, war na am nag war na li bëri woon na wax dëgg yàlla mais man dama gëmoon dama koy dóor. Mhm. parce que coow li ñu bari yëpp. entraînement sax max dafa ma lay wax ne ma carrément dafa am foor danga koy moytu fooram ma ne ko lan mooy fooram mu ne ma tànkam bi dalay cokkaas pour nga soog ko jël tànkam bi mu korose la loxo bi mbo gàll la mboor corool ngeen dox mhm. loolu lay wax max ma ne ko ma ne ko duñ yegg fu ndax dama koy duma mu mhm. ne ko mu ma duma ma ne ko dama koy duma yàlla xam dinaa ko duma ci laa ko dóor na ba gaañ bëñ bi dugg sama bëñ ci kii bi sama loxo bi bi bëñ bi duggee sama loxo bi ñu dem ba mun naa ne temps bi des ay 15 minutes ci nag laa ne carrément ni jeex na parce que boobu noonu sama loxo bi commencé na effet di néew yi te xam naa ne bu continuer arbitre mun na tas combat kon nañ mun nañu jox defet ci laa ko song dóor ko mu yaakaar ci xeex bi xeex bi laay continuer ma jël tànk bi saa yaakaar damay jël tànk bi ma bàyyi tànk bi daw sentiire ko. takk ko pressé ko arrange ko was kaw dóor ko suuf. Oh. loolu laa ko daane moom. nga jël final. jëlee final bi. léegi nga jël final bi léegi Tidiane après. dem or <laughs> dafa garaaw parce que yow làmb ngay doggati ko yoo xam ne mooy nga dem or claf. dem or ma ak kii nii Madou Khoule. ak Pape Sène. ak Birahim Nguer. mu njëkk a bëree sama diggante ak Madou Khoule ma ak Pape Sène. ñu dem Louga bëri ko. ci laa ko daan ba pare dem Madou kii nii kii nii. Euh, euh, Pape Sène contesté victoire bi daal di defaru cours. Mhm. ñu ne bi may def action xam nga dama mënoon bëggoon bëri suuf. Mhm. may def action laa toogaale dugg na fi génn fii nii. Mhm. affaire noonu ci lañ ko joxe victoire mais après dama leen daan ñoom ñëpp waaw. nga daan leen ñoom ñëpp. léegi Tidiane nag le professeur de Lansar fu mu jógee. waaw boobu nag laa jóge na bëgg sama combat ak Ousa 2 Ousa ma ne nag Ouza laa soxna parce que jot na tey jii ma yegg si catégorie bu mag bi. si parcours bi ma def sori na. te bëreegu ma wax dëgg yàlla ñi ma war a bëri. te comme bu daan naa samay morom. non il faut ma jël samay mag. coono yu bëri ci nag. gars yi ne doo ko jël dina ko jël doo ko jël su ñu waxee Ouza Ouza ne carrément man moom pareegoo pour jël booy bu moom. sëñ Modou Niang woo Max ne ko bëgg naa Tidiane ak Pape Tine Sandika may leen du bëri ak Pape Tine Sandika ndax dama ko li ma bëri bëriwu ko waaye boobu noonu Pape Tine syndicat def na bës boo xam te ne mi ngi ak bës boo xam te ne. Mhm. buy ñëw syndicat buy ñëw buy jógee syndicat di dem stade. Mhm. du bàyyi foofu noonu benn fir yi. <laughs> yëpp la yóbbaale. Mhm. day yóbbu xaal. yóbbu bara lépp la yóbbu bu demee buy tuus da koy da koy génnewaale. xam nga affaire noonu. max ne ma pour nga bëri moom il faut nga bu jël ko te boobu noonu mun naa toog naa quatre quatre quatre saisons yoo xam te ne sa sa quatre chaque chaque saison damay bëri quatre combats. chaque saison damay bëri quatre combats. Mhm. saison bi ubbi nag ban taw deux mois maximum boo ko jëlul doo bëri de. Mhm. ci laa jël Pape syndicat ñu bëri bëri bu métti bu ak moom. Mhm. xam moom bëri suuf la te moom laxas xatar bi lay bëri. da laxas tànk bi xatar bi la. bi ma maxi décréturé combat bi ma ne nag jeex na kii du ñu foofu ma moom. mais la ñu xeex ci kaw ma daw song mu laxas ma tànk bi ma écart sama tànk. ñu jëm suuf ma moom dañoo bëri ba sukkuñ ma ñaar si suuf. dañoo bëri ba sukk si suuf ci laa yootoo benn loxo bi yéeg ko daan ko jël ko noonu ci laa jëlee Ousseyn nag Ousseyn numéro un. nekkoon combat bu neex a bu métti. waaw boobu métti wu doon ah, ma la yow waa Fass. waaw victoire yi ma même fois Fass presque la. ngeen. victoire yi ma même presque la waa Fass. mais mën nañ bis bés nañ mhm. mën nañ bés trop mais lañ yaakaaroon ci làmb ji ak la cay am moo bokk. ok comme lan lañ ci yaakaar. waaw parce que ñoom dañu dañu bëggoon dañu yaakaar ne Ouza ak katu fu ñu tolloon noonu te man gisoon naa ne Ouza commencé woon na jëm mag. Mhm. sama avantage mooy combat bi bu yéexee man maa am avantage. Mhm. bu yi tamit aw ma pertement. Mhm. moo tax benn bu suuf lay furub Ouza dafa ma dàq ak kuuma song ko. daw jël tànk bi mu jox ma tànk bi xam nga ko bën. ma bàyyi tànk bi téye naa tànk bi ay 30 secondes yu noonu. téye naa ko nii dafay noonu ci laa. jël tànk bi génnee ko ba a yaaxa dama koy génnee ma jalax ko daw wër ko ndomb mhm. mu déclenché di ma mboot mbootu ginnaaw ma roccee ko bàyyi ko mu tëdd bàyyi ko mu jaaxaan. waaw bàyyi ko hmm. Hmm. nga demaat feneen. gis nga ma jéggiwaat kii rek yaa ma gën a xam. Hmm, après ba nga jógee ci USA. ci laa bëre Paul Maurice. ci séeréer ñaari yi. ba pare da a xawoon kii nag ñoom ñaar dañoo xawoo da a xawoo kii. <laughs> non neex. combat lu ci doon lu ci doon coow li moom mooy. sama waa village. boobu noonu ñuy waroon ñëw suñu jógee dëkk ba ñëw andi ay biis. bi ma leen ne carrément Ousa laa war a am. kii laa war a bëril. Paul Maurice Paul Maurice laa bëril laa war a bëril. Mhm. ñoom dañ ko xam parce que dafa toj côté boobu noonu. ok mujj sama nijaay yi commencé naan Paul Maurice bu Bikol ma ne ko waaw. Mhm. ñu ne ma est-ce que yow kooku mun ko daan ma ne ko yooyu yëpp taxaw na daal taxaw na. te mhm. jamono yooyu la Modou la Paul Maurice bëreeg ñoom Modou si classe bi. ñu bëri wax bëri ma ak war a bëri ma ak moom tamit suñ premier signature de contrat nekkoon jam ñaajo ci RDK bu nekk foofu may baal may jégalu si publicité bi. biñ ñu premier signature bu ñu yeggee takk premier signature mu ne ma carrément boor bi suuf lee fur ma taxali ko ndax naa la duma. ma ne ko neexumaa duma. parce que man nekkuma ragal. boo fekk na xam nga ko nag. non man nekkuma ma ne ko neexumaa duma ndax ma ragal parce que man du ma gëmm. boor bi suuf lee fur doo ma ma gëmm déedéet. doo gëmm yow. xalaatuma ko. Hmm. déedéet xanaa sitaanoo ko baatu yaan dañ ñëw <laughs> xam nga noonu lañ def quoi coow li bëri mu commencé di wax bal bi suuf lay génn suñu diggante ma tàqali yaw yow may nuyu sama grand mbay mbay mbay mbay Diouf keroog moom mooy jël otoom wax dëgg yàlla yóbbu moom signature ba di borom mbaax wax dëgg yàlla mhm. ñu ànd fa arbitre ñu dem ba stade waa si waa dëkk yi ñëw andi ñaari bis coow dina kur nag dina ko daanantu ko daan ñu bëreeg léewtoo bu yàgg lool après bu may sànni affaire sax da dégg <laughs> Père Malick Thiano mi ngi naan ñoom ñaar koy day nax sa morom koy day nax sa morom tas yaakaar na ne boo defee mooy dina lool song parce que ñoom ñaar ay songkat lañ léegi damee la ñuy def rek ba kenn dugg dam waaye man boobu xam naa ne rek kii li mu wax da ko def parce que daf ne woon daal jël ñaari boxeur pour jàng ak man xeex pour pour mu pour pour mu daan ma il faut mu xeex ak man. kon yaa ngi doon topp Paul Maurice boobu. moom moo ko wax dañoo toog signature contrat mu ne ma jël naa ñaari boxeur pour yow kese. ndax naa la duma. yow ku la dumawul du la daan. ma ne ko nekk nekkuma ragal te du ma gëmm bu at bi suufle. Mm. kon Paul wax doon day gëmm sax waaye man sama bopp laa xam rek. xam man du ma wax ayu jàmm man sama bopp laay wax rek dama ne carrément man du ma ragal. Mm-hmm. du ma gëmm ci stade. dem ba stade at bi mu ngay dóor may gëmm. dama ko def bu ñu yeggee arbitre soufflé ñuy léewtoo di ko négocier maak moom ba mu dóor ma coup tëf ma arrière encaissé naa mais dama arrière. def pas non non dama arrière def pas deux pas arrière taxaw mu dàq ma ma fente def déplacement latéral taxawaat léewtoo ak moom négocier waat ak moom négocier waat ak moom ba jege ko bi ma ko dóoree rek dafa réagir. mu ko dóor ko bu dal ba pare ne tekk taxaw di ko déglu xam naa dina fayu mu fudd fudduwaat rek joow ak ay laaw fiiw fiiw mu jël ne coppe tànk bi saa yaaxal tànk bi ma koy jël ma jalax tànk bi laal ndigg li bàyyi moom mooy jerteti ba daanu boppam te daanu na jugaat daanu waat jug parce que topp ma ko quoi. Hmm. dama jël action ba saa yaakaar ne dama koy dàq. xam mënoon naa jàpp si man dañuy jëm suuf dama ko manqué lu équilibre ba mu manqué ma bàyyi ko. léegi nag poids bi moom moo doon jeex jeex ak moom ba daanu. Mm-hmm. nga daan Paul Maurice. waaw ci laa bëri nag Pape borom kii borom États-Unis mi ngi sax feebar bee ko téye. wala ah. combat tamit combat bu garaaw de ah combat bu neex yaa Pape ndax temps yooyu nag Pape Mor la woon macha allah bu daanee ba def nii ah. mun naa ne Lami Samba moo ko taxal presque. Ah. parce que dafa mhm. sama benn grand bu ñuy wax Gora Thiès da koy nuyu wax dëgg yàlla grand bu baax. ñëw fekk këram fekk ma ba gis ma ne ma ah yow nag laa soxla woon Tidiane. Mhm. mu ne ko grand ba jàmm la mu ne ma kaay mu ñëw mu ne dama laa invité dimanche plateau. Mhm. boobu tool yi commencé naa ruumandaat sama diggante ak Pape parce que tamit. waaw boobu dañ commencé commencé nañ ko roomadaat maa ngi koy dégg mais man boobu kenn waxuma ko. ok am na sax sama benn gars yi ma gars yoo xam ne ñu ngi may wax ma man soxla ma ko ndax ma ko raw bëriw ma moom man ki ma soxla moom mooy euh, Papa Sow parce que jamono yooyu noonu moom laa noonu la sama yaram doon laaj. affaire yi noonu quoi xam nga ñu ma dangay bëri ma ak moom. saa yi na ma dama laa invité ma ko kañ mu ne ma dimanche. boobu mi ngi wal fajiri mu ne ko dimanche mu ne mu ne ko mu ne ko kan xam naa ne la ma invité keneen parce que boobu jamono plateau day invité ñaari mbër ñetti mm-hmm. waaye xam moom day ru day <laughs> <laughs> xam nga muy <laughs> ma naa la invité mu am benn problème mais maag kan mu yàgg guy gi ak Papa Sow donc mm-hmm. waaw loolu plateau bi naa soxla moom naa sawar a ñëw mm-hmm. mu ne même pas moo la sax invité woon na invité waal naa la ko mu ne ko noo ñëw mu la moo tax ñëwoo ma ne ko damaa ñëwul rek parce que Pape Mor Lo ngay àndi plateau bu ñëwee fa doon maamam bu waxee ma wax dañ naan combat te loolu du te bëgguma combat dafay coow li nag bëri mu ne ma léegi damaa bëgg yow ci biir émission bi su ma la woowee rek jël ma. ok ma ne ko jeex na ma toog nii sama néeg nii si sànn ba téléphone téléphone bi sone ma wuyu allo ma ne ko allo yaa ngi si jaamu ma ne ko ça va alhamdulilah mu ne ma yaa ngi sànn ma ne ko waaw. mu ne Papa de ñëwul waaye guy gi ñëw na ak Pape Mor Lo daal ne guy gi la nga waxoon tijaan tijaan a ngi noonu dégg nga de guy gi la nga waxoon tijaan tijaan a ngi noonu. Mm. guy gi ne ma champion ziar naa la ma ne ko mbër naka waar lépp jàmm naka yëngu affaire noonu ça va mu ne saa yi da doon wax suñu combat maa moom maa ngi yow mu ne ko waaw loolu de dëgg la moom. man wax la ko ah, ñeme woon ko guy man maa raw guy gi. yaa ko rawoon. Mm-hmm. man xaw a bëri. Mm-hmm. ci ñeme ko ñeme ma man ban moom wax dëgg yàlla maa ngi xool leen quoi. boobu guy ñeme wu la du keesoo ñeme gi sax ak ñeme gi yooyu noonu. mais risque la woon temps ci kan. comme yow ku la jël noonu. non non sax loolu sax noonu yow fi nga yàqoon Tijaan ay risque du risque sax c'est que dafa am foo xam te ne bu fa yeggee emploi temps rek da ngay jaar jël ñii jël ñii. bàyyi ñii jël ñii parce que nekkul ñëpp nga mën a ràññee. mënta nekk il faut nga diviser. champion yi dañuy am ñuy moytu am na mbër yoo xam ne fi ne ne dañuy wax yenn combat waaye duñ ko jël de. Mhm. ah, ah. lu ñu fa jëlee luñ fa jëlee dara loolu ay problème bi quoi. léegi nag dangay jël sa emploi du temps rek teg ko ne lii fii laa war a jaar fii laa war a bëri yegg fële. Mm-hmm. te àdduna sax yaakaar naa noonu la. ñu defee noonu mu ne ma nag voilà Pape Morlo sax ngi ni Pape Morlo waxal li nga waxoon Tidiane rek Pape loo ko teew li ma waxoon maa nga wax te dama ci delluwaat jël avance bi ragal moo tax nga jël ko boo nga bañ ko jël. Mm-hmm. boo ko jëlee doo doo du ne wax ko bi ñu waxee ba pare mu ne ko mu wax comme wax ba mu ne ko mu ne ko yow da ngay ba nga mhm. ko la may chance na kii man bëriwuma ak yow ndax dama mhm. léegi nag ampleur boobu noonu. Mhm. Gaston dégg ko. perte moom la bëgg. xëy rek woo ma combat bi daa a taxaw. na entraînement mag ma ah, waajal ko dina taxaw de ma ne ko père man bëriwuma ak Pape Mor Lo ma ne ko na taxaw de ma ne ko baax na. coow li nga xaw a bëri quoi affaire ci combat bi ñu dem nag ba bési parce que daa am yu bagage yu bëri nekkoon yoo xam te ne mun naa jarul wax sax parce que. comme émission lañ nekk te yoo xam te ne dafa xaw a. non non non yooyu jarul toj ah. parce que. Ah, ah. yooyu yooyu kooku moom mun naa ne daa am ñoo xam ne dañ ko doon ñaanal. Mm-hmm. ay ay mbokam lañ man dañ ma doon ñaanal. samay mbokk ay ay mbokam lañ ñoom yoo xam ne dañ ko jege woon. te cool rek waaw tey coloré bu nga jëlee Pape Modou Lo après ñoom dañ laa bàyyi dem ñaan déedéet duñ ko bàyyiwuñ ma dañ ne ko bu ko jël mhm. waaw dañ ne ko bu ko jël quoi affaire noonu waaw ne ko bu ko jël quoi affaire noonu moom mooy dëgg damay jël dëgër bopp daal ah, noonu mhm. man nag avant loolu di am wax naa ko mhm. bul jël combat bi dinaa jël combat affaire noonu nag maximum da ngay jël combat bi wax baax na xam nga lan moo tax non woon du xam nga la sama man maa bëggu doon combat bi parce que dama li ma defoon sama xel du keesoo ay sëriñ ak lii nii nee na bokkuñ di déedéet mais li ma defoon sama xel dama ne carrément kii waruma bëri moom ndax dama ko raw jant moo bëri moom rek damay wàññeeku waat te wax dëgg yàlla fi ma teg sama bëri war naa mën a bëri laa defoon sama xel nag loo xaw nekk coow li. bi mhm. biñ doxalee noonu noonu coow li commencé nii ba combat bi taxaw. Mhm. combat bi taxawee ñu dem RTS Malick Thiandoum wax saa waay day ratatat nga oh. sonn nga combat. du ma du ma mën a wax parce que li tax ma ne aw fu ma ko yekkale moom mooy su waxee doo wax ndax dafa mën wax. <laughs> léegi su sonnoon nga. su ma commencé wax dalay dog. Eh. wax wax ji yépp eh. taxaw non may noonu làmb ji du wax ja eh, jëf ji la affaire noonu bu coow li bëri rek mhm. may daal man mu ne ma wax affaire noonu dem beneen essence su ma toogee si ñaari contrat damay mer bu mujj Malick Thiandoum di wax per max mu am na ko daa mel ni yow Max Tidiane bi dafa mër dafa mer mu ne ko mer daal su amee signature dafa am dafa am ku yaakaar ne moo mën xam Max fer mi dafa xaw dégg. Mm-hmm. noonu mu ne ah, kon da nga a mën mu ne ko en tout cas mer na daal ku ne daa am daa am ku mer dafa yaakaar moo mën mu ne ko làmb ji de wax ji la fa am. Mm-hmm. waaye bu ca jeexee moom jeex ma mm-hmm. ndax du bëre bëre ba xeex ba. foogte ko. gëm sama bopp dara du bëre bëre bi du xeex xeex bi. bu ñu demee làmb sam noonu la dugg nañ def ko la chorégraphe yu baax. Mm-hmm. ay bi soufflé fur muy damee ba daanu sama kaw. Mm. waaw. daa damee daa daw kon ba daanu. damee doon damee cuux cuux yooyu mu doon def ni la tëf ko ndaw song la. ma góor tërëf ko boole loos bi ak baat bi. fàq ko. mu jaax mu non non dafa boobu dafa sëkku. ma yéeg ko jàpp si ngemb la sa ginnaaw sëq la sa genn mu. Mm-hmm. mu sëggi ma dévier mu won ma beneen tànk bi ma rof ko caxabal dàq ko. Oh. mu jaaxal. Mhm. après. ci la boobu nag laa bëree ak euh, nu ñu koy waxee sax Bala Diouf. Mhm. Bala Diouf meen. waaw combat bu métti nag. combat bu ak koo na ko xam naa ko bu baax. xam naa ko parce da ko préparé bu baax parce que man Fass déggu ma ne dama faa def lu bëri. Mhm. fas dama faa dugg euh, daan fa six personnes. war a bëri moom muy set bi. muy septième personne. waaw te ñoom ñëpp yaa leen daan. Oh. looloo nekkoon amee bor. looloo problème bi nag. looloo nekkoon problème bi nag léegi mais fa adversaire kon. noonu lañ def quoi coow li muy bëri yëpp. mënuma mhm. jeexal nga wax ma ne ko sama septième victoire la. Mhm. mu nekkoon combat bu ma prépare waaye combat bu métti woon si man trop nag. ndax parce làmb la rek xam nga làmb moom. Mhm. am yu bëri yoo xam ne duñ ko wax quoi parce que day mel ni da ngaa ñàkk ñànke affaire yi noonu te yàlla moom dëggul fenn. ñu waaj nañ combat bi def lépp lu ñu war a def ñu dem ba làmb ja bu abdul suuf lee sawaay cuux cuux ne ma tës ko ma encaissé ko bi ma dàqu ne dinaa ko jàpp la mhm. su ma su ma ko gëddee su ma gëddee pour dàqu damay dugal coup droit tëf mhm. ma encaissé ko bi ba pare dafay dafay damay kaaw dëbb damay kaaw bay waaj a toog gaa yaaxat damay foog ma tourné mais boobu nag yàlla moom ma dimbali rek mhm. ak entraînement yu métti parce que entraînement loo ko jëndewu non dañ ko war a fonk combat mun naa ne yàlla mu dimbal dëgg ak entraînement. parce que baal daf may dóor coup bu dal ba ma kaaw di toog. mais moom du ñemee dàq ma nag parce que moom dafa ma ragale woon bëri bi quoi moo tax léegi moo tax ñu ne ko woon comme moom ku ñëpp xam nañ ne la. boo ko laawee làmb ji jeex. parce que bu songee rek làmb ji léegi nag problème bi moom mooy xeexal ak moom jam ak déplacement ba bi suuf lee fur may jam dafa déplacement gauche droite gauche droite. su ma ko dàqee pour pour pour pour xeex ak moom mu daw. bëgg xeex bi muy def noonu boo jël avertir jëlaat avertir ñu pose mu am ab benn avertir ma am ñaari avertir léegi nag coow lu bëri ci. max na ma nag lii muy bëri lay bëri te temps bu jeexee dañ lay jox defet da nga koy force dàq jàpp ko. léegi bëggatuma ci dara nag. parce xam naa ne tey jii bu temps bi jeexee damay perte combat bi. ñoom noonu victoire duñ ko amee baax na si ñoom. parce que xamoon nañu carrément làmb ji moom moo ma jàppee Bara Diouf làmb ji jeex na léegi nan lay war a def léegi ñu bëgg a continuer seen dam mu bëgg a continuer damyee bi mu doon ma bañ damyee bi ba bis ma karkaroo mu dóor ma encaissé ko bi dàq ko mu génn saako yi ñëwaat mm-hmm. arbitre ñëwaat ma dàqaat ko mu dóor ma song saa yaakaar damay song ma roccee ko xeex ak moom ci kaw ñu xeex xeex bu métti moom mu ñëw di ma song bi may song si laa laa laa ko fekk laa laa def contre contre contre contre attaque daa song bay génn fekk ma ko ma ma ma ma remplacer ko daa di koy plaqué. ay mhm. boobu may plaqué boobu noonu fekk fekk nekkatu fa dara parce que boobu noonu xam naa ne entraînement la mais boobu noonu commencé jeex quoi. Mhm. Mhm, entraînement ma ci génne danga ko. ma bëreeg Balla Diouf daan ko. ci laa nag bëreeg ak Jos. waaw Jos daan la. Jos daan ma jël boobu noonu nga xam ne mën naa ne. nga sa bopp di la gars loolu wax la rek waxañ la rek xam nga mhm. loolu duma ko sax juger ay kii nii parce que tey jii nii daa am loo xam te ni da nga koy nangu. Mhm. nettali sa sa say bànneex. Mhm. dafa neex waaye boo nettalee sa defet dangay ngay gëm parce que suñu borom moo lay jox. mais su combat ak Zoss ni nga bëree mooy lan. non loolu mënut a ñàkk noonu la mënoon demee. Hmm. li atteindre loolu seet bi ñu jàppee bi ñu jàpp njëkk nañu jàppante mais bi ñu jàppante jàpp jàppante dañu jàppante. bi ñu demee saako yi dafa génn saako yi. ok jàppante bi. waaw ah, mais nag bisu ndam bisu defet lépp lu ma doon def def naa ko sa làmb ja mais yàlla moo dogale noonu combat bi. est-ce que boobu yaa ngi ci doon sentir sa sa combat ak sa. sentir nga sa non sentir naa ci de sentir naa sama bopp de maa ngi doon sentir lépp moo sentir. c'est que problème bi benn erreur lañ def parce que problème bi erreur bi ñu def moom mooy dañ caa jël poids. ok combat bu looy seet dañ ci parce que dem naa ba ci posé ay cent quinze kilos. jant jooju noonu maa ngi wax ne carrément su ma paree jos ñi ma war a bëri mooy ponkal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sama kanam. comme mooy Papa Sow yegg si catégorie gars yi ko parce que bëggoon ko ko moom. non c'est que bu neex la woon te gars yi dañ ko bëggoon. parce que ay adversaire de taille lañ ñàkkul dañ ko doon topp. parce que amuñ jot boobu noonu. wax dëgg yàlla parce que làmb moom koo war a bëri ngay bëri rek parce que ñooy mayandi xaalis. fay noonu looloo taxoon ma jël yenn poids yi pour bëri ak moom mais poids boobu ma sonal. parce que bërekat chaque jour boo ko bu jëlee poids du bëreeti. Mm-hmm. combat bi mu jàllee Tafa Gueye père Tafa Gueye daf ne ma lan moo waral nga jël poids ma ne ko xalaat ne sax su ma paree rek dama war a bëri ay bor ay poids moo tax ma bëgg entamé poids bi. Mhm. mu ne ma yóbbu poids bi nga yor nii nga waroon bëree ba bàyyi bëri. ok maanaam nekk cinq kilos mbaa 95 kilos maximum. Mhm. mbaa sa poids bu mun ñàkk mun ñàkk. Mhm. nga am cent huit kilos moom mooy sa poids normal. parce que bi nga yor la. mais loolu moo ñàkkaloo combat bi nii. waaw.